bienvenue dans votre émission culture baa ngi jooy may leen ko nopp nous allons parler de culture comme chaque mercredi dañuy invité ñi nga xam ne ils la culture ñoo xam ni Sénégal kenn du leen wax ci culture te du leen tudd tey nag dañ koy waxee dañ koy commencer ak euh, loo xam ne lu ñu xaw a naqari la parce que suñu invité euh, moom lay bàyyi mu dugg sax euh, Pape Faye président ARCOS national du Sénégal Euh, dafay ñëw ci yoon bi ñu ñu agressé ko nangu portable moo tax émission bi xaw a xaw a yéex a commencé pour wan ne Sénégal léegi c'est c'est compliqué quoi grand. oui euh, en fait c'est euh, peut-être pas de l'agression. Mmh. mais euh, imprudence insouciance mmh. peut-être de ma part. Mmh. Euh, taxi bi ma jëloon di ñëw fii euh, def moon attention que vitre bi tëjuñu ko. Mmh. tu vois. Mmh. j'étais en train d'appeler sama benn euh, boy. Mm-hmm. pour benn événement bu mu amal Saint-Louis. Mm-hmm. le 15 octobre. Mm-hmm. Euh, pour la confirmation événement bi naka lay demee. naa nii nii rek commencé tapé rek dama jëkki jékki mel loxo bi dañ ko maas. <laughs> incroyable. mais vrai. cëfit la ko def et puis euh, voilà le temps de réagir fekk taxi bi daaw na tuuti ma xëcc. loquet portière bi justement pour dàq booy bi ki ki bi damm sama sama loxo. kenn euh, loquet bi. waaw dama sax sama loxo donc mm. c' était compliqué. Mm. alors c' était euh, dañ ko surte woon dañ ko surte mm. de l' bon xam nga dans l' euh, émotion. dans le vif ouais. dans le vif tu vois compliqué mais j'ai quand même je suis arrivé à défoncer la porte. Mm-hmm. dégg nga ma. Mm-hmm. dàq naa booy bi. mais après mujj gi say na ci biir lëndëm gi ci suufu pont bi quoi. foofu pont exactement fan la. fii ci suuf pont euh, pont Sénégal 92 bi la. Mhm. waaw foofu la ko en fait c' est un c' est une zone extrêmement dangereuse. Mhm. moo tax euh, dañuy wax ñi nga xam xamante dañuy nekk ci oto. Mhm. Euh, nekk ci soit di dawal wala nekk ci côté chauffeur bi wala côté portière bi yooyu droite wala gauche nañu sûreté fermer portière yi. Mm -hmm. Parce que, voilà, il se passe de choses là-bas. La police fait toujours des rondes foofu, hein, pareil. Mhm. Mhm. mais dafay def toujours pour jéem a jàpp mais ils sont habitués c'est des gosses yoo xamante ni euh, malheureusement ah. euh, manque éducation mhm. ak euh, jéemuñu sax xool naka lu ñu war a réaliser seen ëllëg dans le bon sens mais dañuy def comme ça alors li ki nekk moo euh, c'est après qu'ils vont regretter seeni geste waaw bu ñu nee ba nekk mag dañuy regretter seeni geste parce que am na yoo xam ne soo ko tàmmee xale mu ngi màggale doo mën am une bonne vie de famille doo mën a gérer leen kenn du lu wóolu ci leen kenn du la dénk leen mooy ñi nga xamante ni euh, tout le temps ñu ngi ci kaso yi. ak yooyu quoi. bon mhm. yal nañu ci yàlla musal. mais dañ jàpp ne rek ndogalu yàlla la. noonu la mhm. mun demee. Mhm. et je. Euh, pense que incha allah on va pouvoir retrouver ça incha allah. je vais faire la déclaration. Mhm. Euh, quoi. Mhm. voilà je on pense passe à autre chose. voilà on passe à autre chose et voilà c'est c'est c'est ainsi va la vie. ainsi va la vie parce que neexoon na émission bi commencé neneen. waaw mais ba nga ñëwee tamit man maa la invité. donc voilà c'est c'est c'est un peu difficile pour moi aussi quoi. on prend les choses toujours avec philosophie avec philosophie effectivement nous sommes des croyants loolu la loolu la yàlla dogal quoi voilà <laughs> ainsi va la vie. yàlla moo ko joxoon bon c'est parti et je voilà. macha allah on oublie. mais euh, di di wax toujours rek comme autorité yi. ñu hmm. gën ci bàyyi xel c'est vrai que comme il l'a dit il y a toujours des rondes autour de cet auteur. Hmm. mais ñu gën ko yokk. gën a jàppale population yi parce que fu mu toll nii euh, la violence dafa dafa accrue au Sénégal. léegi gars yi je sais pas xawma lan la mais qu'est-ce que le théâtre peut donner sur ça quoi lan la lan la théâtre mën a andi. Euh, ba xal voilà am théâtre bi tout temps. Euh, mm-hmm. ñu ngi lancer ay messages. Mm-hmm. et alerte. Mm-hmm. à travers. ça des pièces de théâtre ak yooyu. mais. nit ñi ni percevoir le message des artistes comédiens dañ koy percevoir comme étant de la comédie. Mm-hmm. or on fait passer des messages importants. Mm-hmm. pour sauver notre société pour consolider les acquis de la société. Mm-hmm. à travers des messages comme ça. mais que nit ñi souvent dañ à la légère et se disent souvent que c'est de la comédie or c'est un enseignement c'est de la pédagogie. waaw moo tax euh, war nañu bu baax a baax a baax message yi nga xamante ne artistes yi comme yu yu demee nii euh, tout récemment d'ailleurs je profite de l'occasion pour le mm-hmm. dire euh, il y a juste moins d'une semaine mm-hmm. ñu ko doon lancer un message des artistes comédiens mm-hmm. sur comment euh, maîtriser la sécurité euh, sur la dans la circulation sur la sécurité routière mm, c'est important na ngay doxee na ngay traverser comment te comporter boo dee chauffeur euh, bu yàlla dogalee accident am am na foo war dem danga am na foo warul dem am na loo mm. xamante ne assurance moo koy jël en charge am na loo xam ne lii danga ma assurance bi du ko jël en charge su fekkee ne conducteur bi li fiir dafa daw mm-hmm. ah wala ñu xam ko te amul assurance mm-hmm. am na yoon yooy jaar pour ñu mën la jël en charge jox la sa say ndàmpaay. Mhm. ak yooyu yëpp quoi kooku ay message yoo xamante ni. c'est important c'est nous les artistes qui avons qui avons lancé ça. donc vous êtes dans la con dans conscientisation. Mhm. ma ne vous êtes dans la des masses. pour ñu xam exactement nan la ñu war a doxalee benn ligne directrice. Mhm. boo xam war nañ ko andi ci société bi à travers le théâtre. absolument si la ñu dëkk d'ailleurs si la ñu dëkk. Euh, sauf que malheureusement quelquefois appui bi moo xaw a manqué. pour que artistes yi euh, mën a jàllale message yi au-delà de leur zone mhm. immédiate mhm. au-delà de leurs frontières mhm. et même dans euh, les villages les zones les plus reculées parce que boo amul moyen pour faire passer des messages c'est un peu compliqué il faut avoir suffisamment de moyens d'appui euh, appui institutionnel d'abord et voilà parce que lépp defuñu ko lu dul pour raxas nettoyer société bi. Mhm. li lii Serigne Cheikh. Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum doon wax. Mhm. Euh, fokk ñu sang. Mhm. sang réew mi. ci càng ñi réew mi nag jàllale ay message yu mel noonu da ci am solo. am na solo te si lu ñu dëkk c' est notre. c' est notre combat c' notre credo. mooy sunu vie mooy li ñu gëm te war ko def chaque jour. Euh, Pape Faye euh, président Arcos national du du Sénégal. Mhm. li nga xam presque moo ëmbale les les les les gens qui font du théâtre fii au Sénégal. mais Pape Faye en tant que tel c'est un patrimoine de par sa voix. un patrimoine tey mën nañ ne un patrimoine boo xam ni euh, ancré dans notre société patrimoine matériel parce que ñu ngi lay gis en tant que euh, si sa voix mais patériel patrimoine immatériel aussi parce que à travers sa voix yaa ngi immortaliser des gens yoo xam ni yaa a des centenaires ñu ngi woon ci société bi ay Ba ay ay Coumba Ndoffène Diouf Euh, nan nga fexe ba ba ba mën a indi corrélation boobu ba nga xam tey Pape Faye uh-huh. entre la jeune la nouvelle génération et Pape bi nga xam ni seen une génération ancienne ancienne du moins. waaw xam nga hmm. man dama jàpp ni. Hmm. Euh, sunu borom bi. Hmm. su la dénkee benn outil. mu jox la ko. ñun ñëpp la jox ko ci nekk outil. outil yi mooy yi ngay liggéeyee. mooy yi ngay waxee. mooy yi ngay doxee. Mhm. mooy yi ngay xoolee. Mhm. ah euh, mooy xool bi nga xamante ne moo nekk sa dënn mooy émotion bi nga xamante ne moo nekk sa biir dënn sa biir xol pour mën a exprimer li nga bëgg nit ñi xam ko. Mhm. ute yooyu sunu borom bi jox na kenn ku nekk ci ñun. sunu borom bi jox nañu lépp. lépp mat na. léegi des nag ñu ñooy mattili parce que loolu mooy mission wu doomu aadama sur la terre. yaa nga wax. peut-être voir su ma waxee ni ñuy dégg. Mhm. ci outils yi outils yi nga xamante ni sunu borom bi mu instrument yi nga xamante ni sunu borom bi dénk na ma ko mhm. comme ni ma la ko dénkee dénk ko mhm. ñeneen parce que on vous a connu dans le milieu du hip-hop c'est important de rappeler ça aussi euh, ba tax na soo ko amee am yëg-yëg ci sa xol sa dënn nga war a mun a jaarale dégg nga ma message yooyu la à travers ces outils yi nga xamante moom la sunu borom bi dénk da nga wax léegi lu am solo dañu war di immortaliser. Mhm. nit ñu baax ñi fi nekkoon temb ak. c'est important waaw plus parce que seen jëfin. Mhm. dafi des tey way la wu rafet. Mhm. da nga wax ñu mel ni Maba Diakhou Ba. ku mel ni Lat Dior Lat Dior Ngoné Lat Dior. Diop da nga wax ñu mel ni. Coumando Fène Diouf Coumando Fène Diouf. ay Damel Makodou Fall da nga wax ñu mel ni. exact ñu bari ñooñu la nga xamante ni aujourd'hui ñoo nekkoon fii téye woon suñu réew mi nag. sans compter ça il faut toujours que ni ñi di bàyyi xel mag ñu baax ñi nga xamante moi je les appelle les saints ñoom euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul El Hadji mm. Malick Sy mm-hmm. euh, Seydina Limamou Laye Mame Boun Konta Ndiassane mm-hmm. Al Islam Ibrahima Niass mm-hmm. El Mahdi ñoom ñëpp dañuy fi def loo xamante ni il faut que ñu koy utiliser ñun suñuy voix suñu émotion suñuy wax suñu bindin ah suñu xalima di bind ci ñoom di ko jàllale ci biir l'école yi. Mm-hmm. di ko jàllale itam pour que jeunesse bi mun ci inspiré pour mun a def sa defar seen bopp. Mm-hmm. def ñu defar sunu société. Mm-hmm. parce que ñoom dañu defar seen société wàcc nañu. wàcc nañu ñu ne nag su ngeen bëggee baax. fi ngeen di jaar. nit ñi nag dañu faral di wàcc yoon woowule. mais ñun suñu mission aujourd'hui mooy rappeler les gens à l'ordre de se mettre sur le bon chemin. pour refaire notre notre vécu mm -hmm. et euh, fabriquer notre futur mhm, c'est plus qu'important donc loolu mooy sunu mission mhm. moo tax dañ koy accepter porter mhm. da nga ma en tant qu'acteur en tant que comédien voilà pour justement jublu ci lenn nag lu dul Sénégal baax jëm kanam waaw ah, macha c'est notre combat de tous les jours am na solo euh, Pape Faye a wax ci Arcos lan mooy ARCOS. ARCOS mooy. lan moo constitué association nationale des artistes comédiens. Mm-hmm. des artistes et comédiens du théâtre sénégalais. Mm-hmm. mooy kuréel gi nga xamante ne moo ëmb. Mm-hmm. kulli artiste yëngu ci théâtre fii ci réew mi. Euh, nga bokk ci directement walla nga bokk ci indirectement cest nga nekk un sympathisant wala un affilié indirect yow ci hmm. bii nga bokk hmm. parce que képp ku ci am jafe-jafe soxla hmm. ñu yëkk ñun sunu role mooy dox ko ba mu sotti ak jàmm boole ñëpp nekk benn bokk ndey bokk bàyyi ba bañ di xiiroo di ŋaayante loolu mooy sunu mission mooy rôle ARCOS national qui existe depuis quinze ans depuis 15 ans depuis 15 ans la ARCOS. Mhm. Euh, juddu. Mhm. di ci remercier gërëm ku ñu wax Gédel Mbodj le président Gédel Mbodj parce que mhm. moom ma lay wax le père de l'ARCOS. d'accord puisque idée bi ci moom la jógee woon. yàgg na très belle léegi Ndiaye dos nekk président bi génne yàlla dogal na tey ma nekk euh, le président national. ñu ci liggéey liggéey bu am solo artistes yi nekk ci réew mi comédiens yi xam nañu taxawaayu ak dayo ARCOS au niveau national. que dañu woot di waxtaan ak ñoom ñu ne ñoom di defal ay formation à la mm-hmm. base mm-hmm. yemuñu rek ci formation théâtrale mais formation ci wàllu adduna mm-hmm. xam fan ngay teg sa tànk nan ngay waxe ak jëfin yoo xamante ni yi quoique ay comédien la waaye am na lu ñu war a euh, véhiculer lu ñu war a lëngoo ak loo xamante ni waruñu dañ ko war a teg fële que bokkul suñuy valeur loolu la Mm-hmm. li ci soxe nag mooy que toujours dama koy wax. Mm-hmm. malgré que am nañu force de résistance ba tax ñi ngi dund ARCOT cest à mu ngi mm-hmm. dund ba léegi. mais appui institutionnel bi nga xamante ni. Euh, moom la doon xaar ci état. ah. amul. amagul dinañ fa ñëw léegi dañuy. donc waaw bëggoon ñu rester tuuti. en ce sens que. Mm-hmm. dañuy gis tam euh, le théâtre sénégalais en général comme que mm-hmm. yaay président Arcos. Euh, dafa am yoo xam ne dafa nekk ak ay contre valeur aussi yoo xam ne du ñun ñoo ko moom souvent dañuy gis un téléfilm mais doo ko bëgg seetaan ak say doom doo ko bëgg seetaan ak ak ak ay kilifa. ban loolu loolu lan lan Arcos tey lan la ci war a mën a xeex ba tey ñu mën a taxaw seetaan promouvoir déjà le théâtre sénégalais mais promouvoir nos valeurs aussi. waaw moom mm. laa doon wax sànq. Mm-hmm. xam nga boo gisee ñuy def formation yi. Mhm. pour loolu la. Mhm. dañuy wax comédiens yi ne leen nous vous sur le plan esthétique. Mhm. sur les techniques de jeu d'acteur. la mise en scène. nous vous sur la technique de l'écriture scénaristique. ci yooyu yëpp. waaye di leen jàngal tam adduna. lan ngeen war a def ak lan ngeen warul def. lan ngeen war a wax ak lan ngeen warul wax. parce que. théâtre mooy wala cinéma. Mhm. mooy métier bi nga xamante ne daf lay rattraper. Mhm. parce que mën nga def benn affaire tey nga joué ko tey. day neex dans l'immédiat. Mhm. wala boo koy tourner tout de suite doo sentir euh, les effets négatifs yi muy créer. dans le futur. ah c'est après coup ngay naan ngay dem sa kër toog ne mais attends ce que j'ai moi ce que moi on fait dire. ce que moi on fait jouer. ak mouvement bi ma def wax dëgg yàlla. da naa woote pour ñu dindi ko mais c'est trop tard. moo tax toujours dañu leen wax nii vous êtes des comédiens vous avez choisi le métier de comédien dëggal yéen a ko choisir boo choisir le métier comédien amaana waruloo mën a bañ jox la rôle. boo xamante ni bii xëy na bon donc sa sa sa personnage loolu la inc loolu la joxe. mais nag du tee ngay euh, euh, bon trier. Mhm. segg li nga xamante ni lii soo ko joué. dina baax. Mhm. pour yow dana baax pour sa njaboot dana baax pour ëllëg. Mhm. dana baax pour tout ton environnement. Mhm. ak li nga xamante ni soo ko joué da lay yàqal. dana la yàqal lu bari si sa. sa kanam sa kanam donc dañ leen ko wax toujours. moo tax ku ci jot euh, un rôle man damay wax samay artistes na leen doon na baax doon na ma neex man te tous les présidents des ARCO d' ñoom dañ koy waxtaanee dañ wax seen artistes na leen ku leen jox rôle. na ngeen ku leen jox euh, un texte euh, xool leen ak seen njiit. Mm-hmm. seen président. Mm-hmm. seen coordonnateur. Mm-hmm. ngeen wan ko mu xool. su ko defee dañu leen euh, defal yenn correction yi. ak yooyu parce que quelquefois le scénariste day bind rek. du xam les conséquences yi nga xamante ni moom. le mbir mu jur mu ci dem quoi. voilà voilà voilà. mais yow mi nga xam ne yaay joué en tant qu'acteur en tant que comédien tu peux même demander au réalisateur ou au scénariste ne ko écoutez su ma soñoon daal phrase bi ñu dëpp ko wax ko neneen il va te dire non parce que c'est le scénario mais da ngay waxtaan ak moom bu juboo rek donc expliquer lan moo tax mu doon comprendre après effectivement donc loolu la ñuy hmm. euh, sur le plan pédagogique hmm, hmm, la ñuy ah. loolu la ñuy dugal ci xelu comédien yi comédien yi d'accord itam euh, am na réalisateur yoo xamante ni y a yoo xam ne il le comprennent aisément. moi il m'arrive par exemple de jël pièce de théâtre mm-hmm. lire ko ba mu jeex war def mise en scène bi. Mm-hmm. ma dindi ci ay yu bare. Mm-hmm. waaw baare baare ma woo auteur bi ne ko lii bëggoon naa mu bañ a jàll parce que day yàq pièce bi. Euh, sur sa forme esthétique da koy yàq plastique mais. am na nu muy demee dafay heurter un peu celui qui regarde et celui qui écoute. Mmh. il une mhm. façon de réécrire ça. Mmh. da ciy d'accord. macha allah c'est comme ça qu'on travaille. ah euh, en synergie. am mhm. mais kon ARCOS comme CNRA nu mu nekkee est-ce que warul nekk benn organe de régulation. ARCOS tey benn bu koo xam ne balaa un réalisateur wala un scénariste avant ñuy génn dara ci Sénégal lépp loo xam day doon théâtre wala loo xam lu ñu koy gis il faut que mu jaar ci ci yéen par exemple. sauf que nag. Hmm. Euh, bokkul ci mission yi nga xam ne moom. aussi si bien sûr au sein de l'ARCOS non non non. Hmm. Hmm. parce que ARCOS dañ ne. Euh, toutes les cellules. départementales. ou régionales. Euh, sont organisés de façon autonome. bon mais la ñuy créer seen biir. en fait ñoom la concerné mais toujours dañu la naan aussi. il faut être regardant sur le contenu. il faut être très regardant sur la manière de de jouer sur scène aussi. pour ngeen bañ a ridiculiser seen bopp wala. Euh, indi yenn euh, euh, jafe-jafe yi. justement mhm. dans votre carrière. Mhm. mais vraiment c'est la création affaire la bu libre ah. d'accord dafa libre nag doo doo doo doo technique ki ne ko non bul jouer bul kii nii non sur le plan de l'écriture réellement c'est la l'écriture c'est c'est mhm. c'est une liberté. waaw c'est une liberté aussi waaw certaine liberté ñu bañ ñu bañ yoo xamante ni aussi nit nit rek la. da ngay tu mhm. peux t'enfermer. moo tax ma ne organe de régulation nga xam dina permettre avant que ça sorte. ñu mën na ñu mën na ñu mën ko segg. parce que tam c'est important. xam nga comme a déjà un organe de régulation pour ça. waaw mais xam nga <laughs> y a un organe. un organe mais su dañuy seetlu surtout souvent dañuy bàyyi ba tey par exemple génn affaire boo xam ne génn na pare frais ci cent cinquante millions et cetera et cetera. <laughs> ñu dem ba mu doon sorti ñu ne ko waroo ko génne. est-ce que au préalable warul am benn organe boo xam dina permettre les réalisateurs wala les scénaristes mën a proposer seen li ñu bëgg def nga xam balaa muy génn dañ koy ségg nga xam duñ ci perte ay millions ba pare doo ñu doog ne doo leen ko génnee. mais xam nga. Mhm. aussi euh, les mhm. maisons de production. Mhm. Euh, ay kër la yoo xamante ni. mënoo dem di fouiner un peu. voilà si seen biir ba xam lu ñuy liggéey lu ñuy bind ak ku ñuy jël ak ku dul jël mënuloo ko. tu peux pas parce que da am ay limites par rapport à ça. mais ñoom si seen biir ñoom mun a xool un peu par rapport euh, à la cartographie par rapport à à. à la sensibilité euh, à la sociologie du pays. Mhm. lan la ñu war a dugal ak lu ñu war a dugal kooku peut-être maison de production yi war nañu xool loolu pour ne pas heurter encore. justement euh, euh, voilà la sensibilité. Mhm, religieuse mhm. la sensibilité ethnique des gens. surtout morale yooyu morale yooyu yëpp dafay am bon. moo tax dañuy bàyyi gars yi ñu def dans une liberté de création. nu ma leen neexee. mais euh, ca cëppandaw ga nag après su fekkente ni euh, dem nañ ko diffuser euh, dans les médias dans les télévisions c'est en ce moment-là que le régulateur mën a agir pour dire attendez c'est passé sur telle chaîne nationale donc attends on va peut-être appeler les gens avant de faire une mise en demeure ak yu mel noonu ce que le Seigneur a fait d'ailleurs ah ouais, ouais. euh, mmh. voilà mm-hmm. quand mënul Sénéral peut pas aller dire aux gens écoutez mm. euh, mm. montrez-nous ce que vous allez. bien sûr mm. voilà moo tax ma ne de même que la direction de la ah. cinématographie. Mm-hmm. bon euh, c'est vrai que ñiy produire ñëpp dañu war a demander demande d'autorisation de tourner. mais écoute les gens tournent tout le temps sans demander l'autorisation parce que c'est vrai mënuñu tout le temps di di rang devant la porte de la de euh, euh, euh, la direction de la cinématographie. Ouais. pour demander des des autorisations de tournage. mooy yoon nag. mooy yooyu mooy yoon mais mooy yoon mais ah. mais les gens sont tellement habitués. assainir le le secteur quoi il faut qu'on assainisse le secteur on on mm. on s'est fait confiance mutuellement entre la direction de la cinématographie. Mm. les réalisateurs les maisons de production si bien que les gens ils tournent comment quand ils veulent a pas de problème pour ça bon euh, sauf que bon bu fekkee ne dem nañu ba xool nii ah lii kat bu jàllee am na lu muy yàq. Mm-hmm. en ce moment peut-être que le régulateur. Mm-hmm. pour lui dire attention. Ouais, ouais. Il appelle. Mm -hmm. Il appelle le, le, le, le, la maison de production ou mm -hmm. le réalisateur. N'est écoutez, ça s'est passé. Mhm. Il faut qu'on en parle. Mhm. parce que mënul continuer. soit mhm. ñu yóbbu ko à une heure boo xamante ni bii day fekk euh, ñu bari nelaw. xale yi surtout voilà surtout surtout. Hein? ou bien euh, ñu ne écoutez il faut revoir le texte. waaw balaa moo continuer parce que arrivé sur plusieurs cas yu mu bëggul cité quoi. xam nga yu mel noonu mais euh, je pense que. bon mujj gi euh, fay mu daal mooy day mooy nay rafet rek. Mhm, mhm. parce que réew mi yëpp ñoo ko bokk. ñoo ko bokk mhm. euh, les gens ont envie de travailler les gens ont envie de créer les gens ont envie de montrer quelque chose de tout à fait nouveau il y a qui le font euh, sans se soucier au préalable que dana am lu muy yàq parce que personne n'a intérêt pour yàq. Euh, doxalinu doxalinu réew mi. Mm-hmm. yow dañu bëgg suñu réew mi daal. Mm-hmm. personne n'a intérêt à cela. Mm-hmm. mais nit day juum. day juum bien sûr nit day juum. boo juumee tu dis écoute bon on m'a rappelé à l'ordre bon nga nangu ko. nga nangu ko. et on rectifie c'est possible pour pouvoir travailler après. ñii nga xamante ne également sont chargés du contrôle de la régulation également am esprit. de de dépassement de compréhension surtout te xam ne ñëpp ay sénégalais lañ li ñu war yëpp mooy defar liggéeyal suñu réew. Mm-hmm. ñu waxtaan rek parce que parce que bu dul bu autour d'une table rek waxtaan. Mm-hmm. bu amul rek problème day am. mais bu ñu toujours ñàkk waxtaan day c'est la raison pour laquelle d'ailleurs. Mm-hmm. nous nous avions proposé. à l'époque euh, euh, avant même le CNRA. au niveau de au niveau de l'ARCOT. nous avions proposé à ce que au niveau. de chaque chaîne de télévision mu am benn benn benn benn petit groupe de visionnage qui hmm. visionne un peu hmm. les les peut-être les séries qui passent sur mais c'est compliqué avec les chaînes de télévision parce que souvent duñ ko hmm. mais euh, tout est dans nous mën na rafet mën na rafet sans que ñu euh, ñu sonal kenn. Mhm. waaw. si nous dans nous Sénégal. ñu Sénégal nu mu gën a rafetee et puis tey surtout conscientiser la masse. loolu moo ci gën a am solo quoi. oui na rafet rek je pense mhm. que va arriver à ça incha allah. voilà mhm. euh, di remercier au passage euh, le Sénéral qui fait un excellent travail entre nous. il faut le dire ah. waaw waaw à chaque fois que. y a des problèmes. alors ce que fait le Sénéral c'est appeler les gens. ñu toog autour d'une table c'est arrivé plusieurs fois. c'est bien sans kenn yëg ko. Hmm. le président Babacar Diagne c'est ce qu'il fait moi suis membre du CNRA. ah c'est bien ah, déjà c'est important. je membre du CNRA. Hmm. quand il y a des problèmes ñu soulever ko. Hmm. au lieu de dugg ci réseaux sociaux yi di wax. on appelle. Euh, le producteur euh, le réalisateur s'il le faut le scénariste d'écouter voilà y a un problème. on vous demande pas. de de d'arrêter ou de suspendre. Mhm. on vous demande de faire un petit recul. xoolaat mhm. texte yi xoolaat message yi. Mhm. contenu yi ah mais en attendant il faut diffuser une heure tardive. le temps que ñu règle les yi. et c'est comme ça que ça c'est toujours ça c'est que ça important sénégalais yi xam ko. xam na seen tam dañuy def benn un euh, travail important. mais su fekkee objectif quoi. su fekkee dem ba ëpp doole ëpp loxo en ce moment nag on peut sévir. mais hmm. on n'a jamais euh, pour les séries de télévision à part à l'époque maîtresse d'un homme marié. Euh, qui était venu ils ont compris. voilà defaraat macha allah am na am na solo mais en tant que président tey dañu gis tey théâtre bi. ñu bari bari bari bari bari en un certain âge suñu feebaree am nañ problème euh, toujours ils sont dans les difficultés du ñu am kër du ñu am et cetera cetera lan la ARCOS tey préparé pour loolu pour surtout pour les jeunes qui aspirent à devenir des des gens qui font du théâtre. Euh, une excellente euh, question. Mm parce que mbir la moo xamante ni bii ARCOS da ci yàgg taxaw yàgg xeex. Mm-hmm. ñun ARCOS dañu yàgg jël les devants mhm. sans attendre l'État mhm. ou l'appui de l'État on avait proposé il y a plus d'une dizaine d'années euh, de travailler en en en en en étroite collaboration avec euh, l'IPRES mhm. nous avons rencontré à l'époque le directeur de l'IPRES Mbengue je pense on avait suggéré de travailler avec eux justement euh, ci ni nga ko waxee noonu pour les cas de les cas de retraite yu mel noonu mm. même au niveau euh, la caisse de sécurité sociale voir un peu comment prendre en charge justement les artistes qui ont des problèmes de santé wala xam ne dañu dem à un certain niveau social ñu am une certaine précarité mm -hmm. dans le fonctionnement social mm-hmm. euh, euh, ba ñu ñu ñu ñu on avait presque acté la chose ba war ko mm-hmm. mais ñun xam nga dafa am ñu mën a yem effectivement on ne peut pas mmh. foncer. Ce qu'on mmh. a, c'est avoir l'idée, mmh. proposer cela aux gens, euh, ceux qui sont au sommet, qui sont dans les institutions, mais mënuñu avancer. Mhm. mënuñu avancer parce que ñoom peut-être ils sont bloqués peut-être juridiquement peut-être. ah mais c'est des choses que nous avions nous-mêmes suggérées. beneen bi mooy euh, bi ñuy bi ñuy euh, taxawal euh, CMU. ah. avec euh, notre regretté Mbengue. Ouais, je crois c'est Mbengue qui Voilà, c'est ça. Boobu bu ñu on était à Thiès en réunion nationale pour voir un peu comment sur le plan social régler les questions yi nga xamante ne ñooy ñooy peut-être agressé moralement physiquement euh, socialement les artistes issus du milieu théâtral c'est-à-dire mm. euh, bon duñu am kër fu ñu dëkk après day metti wala ñu feebar du ñu am ki la ñu en charge nous avons tenu une réunion importante ce jour la ñu woo en pleine réunion ni ñu il se passe quelque chose dans trois jours au King Fahd Palace à l'époque euh, ñu xool un peu par rapport au CMU. Mmh. Hmm? voilà on a dit euh, euh, d'accord voilà mais bon ñu dugaluñ ci comité de pilotage bi di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey ba def ba ba ba implanté. le euh, le conseil d'administration. Mm -hmm. waaw qui se trouvait à le, le le président c'était Babacar Diouf. bon il y a eu quelques membres yoo xamante ñu ngi ci biir donc c'était membre de l'ARCOTS. Mm -hmm. mais euh, ça n'a pas réglé le problème. entre mhm. nous mhm. réglé le problème ba léegi. d'accord beneen bi ñu jubli si nii on va maintenant vers la. Euh, la création du statut de l'artiste séminaire bu ñu mmh, mmh. Mmh. la ñun on nous a appelé au séminaire juste bi ñu def clôture bi y a eu des experts yoo xam ne ils été commis pour ñu mën a liggéey ci documents sur un bon plan stratégique et c'est bon malheureusement jusqu'à présent c'est resté comme lettre morte il y a pas d'évolution il y a une promulgation ah le président ne l'avait pas promulgué Voilà. le statut de l'artiste. oui ñu ngi ci. ñu ngi ci ñu ngi ci mais mais mais ça bloque. Mm-hmm. ça bloque aujourd'hui personne ne amul kenn ku la mën a wax lu tax affaire bloqué parce que en fait. il mm-hmm. y que le président de la République aujourd'hui mm-hmm. qui peut décanter la situation la situation ñu ngi ci loolu bu ñu problème yu bëri yu bëri dafay wàññeeku. mais pour dire que tu la situation du du statut de l'artiste. xam nga kañ la woon. c'est je me souviens encore j'étais euh, très jeune étudiant ah mhm. di dem Sorano et les gens parlaient du statut de l'artiste je je m'en souviens ba Abdou Diouf ñëw encore ba ma dem conservatoire ah on parlait du statut de l'artiste et c'est compliqué aujourd'hui ma jox la benn exemple j'ai parlé de ça dans une euh, euh dans un organe de, euh, de la place mm. on prend le cas des musiciens de l'orchestre national ah oui c'est dommage hein ouais. Euh, mais dama ni l'orchestre national c'est un patrimoine. Mmh, c'est un patrimoine ouais. les musiciens qui sont là-bas. ah dañ la war a tiitaroo parce que quand on dit l'orchestre national du Sénégal c'est comme si on disait le ballet national du mhm, Sénégal. Mmh, mmh, c'est comme nationale. si on dirait mhm. la compagnie dramatique nationale du Sénégal. Mhm. c'est comme si on dit euh, le grand théâtre national c'est comme c'est comme voilà division la bu am importance au sein du ministère de la culture. mais quand on quand on parle un peu de de ce qu'il gagne moi je n'ai jamais su qu'il gagnait jusqu'à quatre ñu fa ñu fa def vingt ans jusqu'à présent ay salaire. les choses ont changé il faut que les gens ñu ànd ak mm-hmm. il faut ñu ànd ak alors qu'est-ce qui s'est passé ba affaire ne stagné ba mm-hmm. que depuis ans les salaires n'ont pas bougé. Mm-hmm. c'est compliqué qu'est-ce qui se passe et que orchestre national duñ ko sax dégg. du temps d'Abdou Diouf. Mmh. ou de Senghor mais quand il y a des soirées de gala c'est l'Orchestre national qui y allait hein. Ouais. Quand des institutions faisaient de grands très grands de, de de très grands événements on voyait l'Orchestre national. Mmh. Voilà donc xawma qu'est-ce qui se passe maintenant. il mhm. y a un laisser-aller boo xamante ni bii euh, ça ne s'explique pas. pour qu'aujourd'hui les artistes de l'Orchestre national se mettent dans la rue en portant des des brassards rouges ouais. en disant il faut arrêter la précarité ça suffit baaxul mhm. je pense que euh, ñun ñëpp war nañu jox jox ñu jàpp ci ñu jàpp ci quoi que mhm. c'est des salariés mhm. encore que quelqu'un me disait c'était un ancien de l'Orchestre national euh, je me demande si est-ce que ñoom est-ce qu'ils sont reconnus au niveau de les je ne le il faut le vérifier mais apparemment dafa mel ni qu'au niveau de les presses euh, voilà il faut vérifier ça y a un problème au fait au fait est-ce que c'est pas que euh, l'État en tant que tel ne respecte pas les artistes parce que je bon pas que euh, à un certain niveau mais est-ce que loolu quoi parce que euh, le ministère de la culture uh-huh. man pour man place bi nga ko jox sax dans le gouvernement c'est pas sa place parce que nit ñi dañuy jàpp ne culture mooy affaire fond affaire def nii génni alors que culture mooy éducation culture mooy économique culture mooy sociale culture mooy lépp mooy vitrine mooy li nga xam ne moom la ngay gis. tu sais quand tu vas mais, dans mais mais ñun suñu quand tu vas dans hmm. dans dans certains pays je prends le. tout mais le PIB en France. en France en France wala wala mais jël 16% de la de le PIB si je ne me trompe. va là-bas à côté le Niger jël Nigeria léegi tu vas voir ce que le l'industrie cinématographique. ah oui apporte en termes de devises même le Burkina le Burkina Faso. en termes de devises euh, euh, mais dañu contribuer de façon immense de façon énorme justement à l'économie nationale mais, je pense que mais plus euh, bon en tout cas daal mm -hmm. il faut euh, moi j'aime pas tellement <laughs> l'expression les non. états généraux de la culture. non mais il le faut. bon mais il le faut il faut il les faut, états généraux il faut de la des culture. assises yoo xamante ni. Ah, oui. mais des, des assises yoo xamante ni vraiment mm -hmm. basées sur la sincérité. waaw loolu nag mooy problème parce que quelquefois dañuy def ay ay séminaire ay réunion mooy def ci tiroir rek yu mel c'est un peu de la poudre aux et c'est mm. pas bien mm. euh, bon ma jox la exemple récemment il y a trois ans on a tenu un séminaire au Lac Rose mm. pour le développement du théâtre parce que dañu bëgg un fonds destiné au théâtre au théâtre au développement du théâtre comme il en existe pour euh, le cinéma. Mm -hmm. et la et les cultures urbaines. Mm -hmm. hein à coup de milliards. Ouais. au théâtre il y en a pas. ñu doon def séminaire avec l'appui bien sûr de la direction des arts donc ministère de la culture. Mhm. pour que ñu mën ci jàpp. Mhm. mais jusqu'aujourd'hui <laughs> on ne sait pas pourquoi les choses sont bloquées apparemment euh, le plan. Euh, stratégique pour le développement, c'est déjà en place, que tout est rodé, huilé. Maintenant, c'est posé à, une table. Laquelle table, je ne sais pas. Est-ce que c'est la table du ministre et c'est la table du président de la République Mais je pense que dans l'affaire Bougeoul Belégui, Bougeoul Belégui, c'est vraiment, mm. c'est vraiment Mais est-ce que, le président est au courant Parce que, parce que nous, nous comprenons, nous, artistes, déjà, problème, nous, ba pare voilà euh, que yi nga xam ne mooy statut de l'artiste nga xam ni day day mën a régler. léegi pour la question du je veux dire je veux dire dama dama ko wax dama ko singulariser rek. Mm-hmm. mais je veux dire bëri na quoi yoo xam ni mu ngi ci sur la table je sais pas du président. Mm-hmm. peut-être tam instabilité ministérielle bi ñu am ci ministère de la culture wala gars yi je sais pas. le maîtrise pas ñi ñi ñi jiite ñi jiite ministère de la culture ce sont des gens qui dem ñu dem jàngi comme ñeneen ñi comme dem jàngi France dem jàngi Égypte wala jàngi fii donc war nañ maîtriser les rouages yi nga xam mooy permettre que la culture soit de l'avant mais lan mooy suñu problème wala euh, politique culturelle bi suñu bi suñu président yi président yi euh, wala wala les politiciens ñi nga xam ne chaque fois suñu waxee naan ñu woy euh, la culture la culture. am nga xam nga le président je, je peux dire que sur certains aspects liés à la culture le président de la République est au courant parce que booy xool tout récemment. Mhm. Euh, signé na agrément au niveau de la SODAV. bien sûr. bon. Mhm. comme il avait signé avant. Mhm. et euh, am na benn appui boo xam ne indi woon na ko parce que on avait. justement euh, demander à ce que le président réagisse par rapport à ça beneen bi mooy c'est par rapport à la nga xamante ne aujourd'hui euh, bu taxawoon je pense que artistes yu bëri dootuñu jooy lañ daan jooy démb mhm. waaw loolu aujourd'hui mooy sunu combat mhm. et je pense que am naa yaakaar sommes sur la très bonne voie mhm. dès l'instant que le bon l'agrément est ici la am bu président signé nous souhaitons que ça soit une continuité pour que la copie privée soit maintenant ne soit plus des vingt mots. Mm, mais soit vraiment quelque chose d'effectif. que ce mm. soit une mm. réalité boo xamante ni palpable. Mm-hmm. artistes yëpp. Mm-hmm. qui soit musicien artiste comédien ou plasticien ou autre la mën a gis seen bopp ci mbir mi quoi. Mm-hmm. donc pour le cas du théâtre précisément. Euh, le président il connaît le problème des artistes. xam il y a du temps de Mbagnick. Ndiaye qui était ministre qui fut ministre de la culture. de la culture ouais, ouais. Euh, quand moi j'avais posé le problème. Mm -hmm. en disant quelle est cette discrimination là euh, entre le cinéma et le théâtre. Mm -hmm. le cinéma qui bénéficie d'un fonds à coût de milliards le cin le théâtre d'un euh, coût à zéro franc. Mm -hmm. alors dafa ne benn tuuti euh, polémique. Mhm. Euh, l'histoire est allée en réunion du Conseil des ministres. Mhm. le président de la République avait dit, et c'est dans les, c'était dans euh, le, le, le, papier du, du, du, Conseil des ministres, mais il est diffusé après, mm. il avait demandé à ce que euh, les institutions, le ministère et autres là, puissent accompagner le théâtre d'inspiration historique. Mm -hmm. Donc ça revient exactement. Exactement, ouais. mm -hmm. ak li nga doon wax ni hmm. waxuñu jëmmal li fi hmm. newoon démb di lu baax. bien sûr mag ñi doon ko fii doon ko hmm. cultivé. Hmm. loolu la président wax bien mais ba ko waxee. ba mu ko waxee ba léegi. Ah. benn département. benn institution. bu jóg ne naawoo ak diw ak diw ne leen li ngeen am ci valorisation du patrimoine national. historiquement parlant ou culturellement parlant te président de la république ni euh, euh, nañ leen ci jàpp. indi leen ma jàpp ci amul kenn ku ñëw ni indi leen ñu jàpp ci et le président a donné avait donné des instructions c'est-à-dire ferme, ouais, ferme, il est il est il est fondamentalement euh, dans cette dynamique d'accompagner justement euh, la promotion mm-hmm. de la culture et des arts au niveau au niveau national sinon euh, du ñu woon ji le bien grand sûr. prix du président de la République pour les arts. pour les arts mais problème bi mooy l'accompagnement ñi nga xam ne ñoo nekk tout autour mm. de ce euh, de bon bon de, nos, notre métier qui la culture et les arts. ah sunu tutelle yi. Mm-hmm. <laughs> mais ñoo deful li ci war. mais mais effectivement. y a un problème. effectivement. y a un problème je dis une chose. Mm-hmm. yalwaanuñu kenn. waaw. ñaanuñu kenn. kenn. on le fera jamais. Mm-hmm. parce que dañu ànd ak suñu ngor ak dignité. Mm-hmm. mais ce que nous faisons. Mm-hmm. c'est pour notre pays. c'est pour la postérité. c'est pour valoriser notre patrimoine historique. c'est pas pour rien que le président le a dit ministère de la culture et du patrimoine historique, historique mais c'est pas pour rien. c'est pas pour rien hein. gars yi foog ñu am dégg. dégg ah non. foog ñu am dégg. bi leer na nañ. mais nous on a fait des efforts pour mettre. Mm -hmm. euh, à l'écran Lat Dior Ngoné Latyr. Mhm. les valeureuses femmes de Nder. ndeysaan macha allah. on a joué récemment l'histoire de Damel Makoudou mhm. l'histoire de Major Yacine Bobo. Mhm. belle histoire qui ressemble à une tragédie. la Grèce antique. Ah grec grec yi ñoom ñu ngi valoriser seen Grèce antique ñun ñu ngi ñu ngi ñun. alors <laughs> ñu ngi seetaan suñu bopp on a dit. waaw. Euh, Thierno Souleymane Baal. Ah, Torodo. le Torodo le le le ouais. le le révolu bon le leader de la révolution Torodo. bien sûr bien sûr. on a dit Thierno Souleymane Baal ñu liggéey ci ay trois ans avec des universitaires de très haut niveau avec le centre africain pour le développement. euh, des cultures et des arts euh, qui est dirigé par notre ami euh, Mamadou Yurissal qui est professeur mm -hmm. à mm-hmm. l'université Gaston Berger de Saint-Louis mm -hmm. qui a fait des recherches mm -hmm. sur ces tomes là nga xamante ni moom kenn je l'avais contacté pour mais, mais c'est ça mais ces mm-hmm. œuvres sont sont, mm-hmm. sont sont enseignées dans les universités américaines dans les universités alors, américaines oui alors que fii tu vois on a eu un un auteur, c'est un, c'est un grand intellectuel. Je crois qu'il est, il est d'origine gabonaise, mais qui a vécu aux États-Unis, qui a écrit une belle histoire sur Tiane Seleman Bal. Wow. Euh, mais, belle histoire. Mais trop belle histoire. Alors, nous, on a essayé d'adapter ça. Mm-hmm. On a demandé avoir des moyens pour continuer l'IGB. On nous a reçus, euh, on nous a reçus au ministère à l'époque avec tous les bureaux de l'Arcos national. Bon, celui qui était là avait dit, mais tiens, c'est bon, j'aime ça. il faut valoriser après jox ñu yeneen nu yeneen personnage yoo xamante ni après bu ñu paree ci loolu. ñu ci. Mm-hmm. mais fa la yem. moi je dañu am lu lu rëy ci réew mi. Mm-hmm. ñu koy caaxaane tu sais pourquoi moi je fais moi personnellement euh, je fais. je rends hommage, moi, aux érudits qui sont là dans ce pays, qui sont, qui sont des lumières pour nous. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. J'ai écrit un texte sur lui. Mhm. chaque fois dañ koy diffuser. Mhm. dama ne ah, bu ñu ko defal man man maa maa ko defal sama bopp diffuser ko. mais dëgg la c'est pas pour moi. mais dëgg la j'ai fait pour euh, euh, la famille de El Hadji Malick Sy. Mhm. c'est des valeureux. c'est des valeureux hommes. j'ai fait la même chose. ah j'ai fait pour Seydina Limamou Laye je mm-hmm. suis en train de pré de préparer pour euh, euh, euh, comment dirais avec pour Baye mm-hmm. le texte est prêt comme je suis en de préparer un texte pour Aline Sitoé Diatta dama koy mettre sous forme de vidéo et je vais diffuser ça ah laajuma ci dërëm kenn parce que xam naa ne institution yi ñoo ci waroon a jàpp ah il faut forcer ci waroon jàpp yàgg y a quelqu'un mm -hmm. y a quelqu'un qui m'a envoyé un message je bon je me euh, je me garderai peut de citer son nom ici parce que dañu bañ mu déranger une autorité mu ne ma li ngay def fais-moi un projet de budget waaw tous ces personnages là ñu def une série sur sur eux mais c'est plus qu'important même si c'est des petits morceaux mais bien sûr ñu xam leen du ma tudd turam parce que da ngay Mhm. Euh, voilà ñu. non si si si si parce que li nga li nga def c'est c'est plus que important en ce sens que aujourd'hui hein regarde si Cheikh Ahmadou Bamba ou euh, Thierno Souleymane Baal étaient américains ou japonais ou <laughs> chinois. ñun sax dañ ñun ñun les africains dañ koy approprier wu. mais, mais pourquoi ñun ñu am ñu mel noonu richesse yu mel noonu nga xam ni ce sont des gens yoo xam ni dañ leen waroon di dañ leen def ay yoo xam ne dañ leen war a taxaw di leen chaque jour ñu may leen benn une heure de temps boo xam dañ leen di dañ leen dañ leen di waxtaanee. ñëpp di ko xool ñëpp di ko ñëpp di ko bëggee. mais ñu ngi bëggee ay ay ay américains ñu ngi bëggee ay français ay italiens ay chinois. alors que ñun des des gens valeureux yoo xam ñoo fi nekkoon. c'est vrai moo tax ndeysaan. Euh, am na ñuy wax ci Sëñ Tuubaa wax yu rafet yu baax parce que. boo koy déglu sa xol dafay. non dafay neex. dafay neex dafay neex. xale yi ndaw yi. Mm. ñu kontaan ñu xam kan moo Cheikh Ahmadou Bamba. kan mooy El Hadj Malick Sy. kan mooy euh, Seydina Limamou Laye. Mm. kan mooy bon kan mooy Lat Dior Ngoné Latyr. waaw ainsi de suite. les femmes de Nder ñu xam. dañ koy xam lan la il faut ça ça c'est des choses yoo xamante ni moo mm. c'est mon combat de tous les jours de mais xaaruma ci kenn de. c'est-à-dire que. du tee nag maa ngi ci góorgóorlu di wax gars yi ñu jàpp ci parce que du man mm-hmm. c'est pas pour moi c'est pour le pays c'est pour la postérité c'est pour notre jeunesse c'est pour notre histoire parce qu'il faut que mbind mi soit mm-hmm. une écriture indélébile qui mm-hmm. reste là Mm-hmm. jusqu'à la fin des siècles. mais mais et puis grand gis nga gis nga tey man chaque année presque je fais presque le tour du Sénégal chaque année. par rapport ak manifestation yi organisé xaaruma ci kenn de. Mm-hmm. parce que su ma ci doon xaar état rek moom kenn waxu ko. ce sont presque mes propres moyens. Mm-hmm. état bi su bu doon tey budget bi nangam la suñ la joxee tey benn benn dërëm lañ la ci jox boo xam ne jëriñu la jëriñu la dara. yooyu yaay dem mais est-ce que xam nga violence yi ñuy gis sax le jeune de Kédougou de Tambacounda qui se sent exclu. est-ce que est-ce que gis nga lu mën a andi les jeunes de Kaffrine de de de Matam de Saint-Louis qui se sent exclu parce que sentir na ne moom bokkul ci Sénégal mais kooku lan la mën a def day andi apporter bi une certaine violence day tax mu mu mu bañ société bi tey da lay wóor ne am na ñoo xam ne tey dañ naan man bu doon tey sax nekk jihaad yi sax dama koy dem nekk parce que ils se sentent exclus de la société oui moo tax ñu nga c'est important mm-hmm. euh, tey rek j'ai discuté avec un ami mm-hmm. qui de la jeunesse mm-hmm. alors euh, bi mu ñëwee gis ministre bi ci benn euh, festival mu bëgg a amal. Mhm. le ministre a tapé a frôlé une idée généreuse. Mmh. c'est-à-dire euh, de mettre l'accent euh, exclusivement sur la jeunesse. ba xam ah. lan la jeunesse bi manqué. Ah. ñu indi leen ko. Mm-hmm. voilà <laughs> ñu mën a fàtte yenn ñi nga xam ne ay dérives lañ. mais ne si les ministres pensent comme ça mais bravo. mais si si loolu suñ ko amee suñ ko bravo. oui donc il faut que il faut thématiser le festival autour de. Mm-hmm. Euh, de jeunesse. et des mm-hmm. valeurs positives yu mel mm-hmm. noonu quoi. non si waaw mais mais tey tey tey gis nga tey culturellement. Mm-hmm. par exemple ñu ngi bëgg développer en par exemple thème bi bu ñu bëgg def ci Oscar des talents employabilité des jeunes l'agriculture une solution face à l'immigration illégale genre affaire yu mel noonu te pourtant on fait le tour du Sénégal et il d'autres pays qui vont y participer. mais souvent problème bi ngay am comme beaucoup de il y a beaucoup de jeunes il beaucoup de jàpp ne yow. soit da ngay bokk boor bi politique on le di wala da ngay bokk da bokk ci boor bële yow yow dañ lay dañ lay jàppale selon boor boo nekkee te loolu dafa war a jógee dañu war a jël le sénégalais ñu xool ki nga xam ni mérité na def benn affaire ñu jàppale ko ki nga xam ne mérité na jàppale ñu jàppale ko ki ñu xam dañ ko war a jàppale ñu jàppale ko mais les gens dafa mel ni ils font dañ dañuy xamu quoi. oui oui c'est c'est ça xam nga xam nga aussi benn affaire bi dafa am. Hmm. Euh, dégg na benn message bu Macky Sall. Mhm. Euh, il faut savoir lire entre les mots. Mmh. c'est comme pour dire aux autorités soit aux ministres ou aux, directeurs nationaux. Mhm. d'être à l'écoute des populations. je pense que je me demande si le message là ça, ça été bien perçu. beneen bi mooy quand il dit ça c'est pour dire aux gens. il ne faut pas fuir mm-hmm. les populations mm-hmm. nit bu la wooy téléphone mm-hmm. même boo di directeur de société directeur national ah, jël ko wala boo ko mënul jël bu la woowee peut ne ko bon peut-être envoie un message. mais fii ministre yeeg kii directeur yeeg. waaw fii kenn du jël téléphone. duñ jël téléphone c'est ça le problème fii dañuy respecté wuñu nit ñi. da ngay woo koo xamante ne kii da te dañuy fàtte ñoom ñoo doon toogandoo fii. exactement waaw ay ay di lekk caaf. t'as compris xoslu. mais koo ci woo. du la jël du la jël xam lu ñuy xaar. Ah ah. mais ma gars yi nag artistes yi ma li may ñaan artistes yi mooy xam nga mooy lan. Mm-hmm. nañu bàyyi ñaan bi may ma. Mm-hmm. Euh, lebal ma abal ma yooyu noonu nañ ko teg de côté nous avons notre métier. Mhm. c' est par rapport à notre métier la ñu war a dund. exactement loolu exactement loolu mooy sunu problème moi je voudrais mhm. dire aux directeurs nationaux. ngir mhm. yàlla. dañ leen fi teg euh, pour ñu liggéeyal liggéeyal réew mi ak askan wi. dégg nga. bon te bañ di daw nit ñi. parce que am na ñoo xamante ni ñoom de que ñu nommé leen bu paree. jeex na bu amee un mois deux mois c' est difficile de les accrocher après. da leen di xam avant mais pour jël leen téléphone. dañ gis sa téléphone di sonné nii ñu xam ne yow la du ñu la sax jël. mais dama koy loolu dafa baaxul. dama koy jiital si suñu directrice des arts man sama xarit la. Mhm. mais xuj pour nga woo ko jot sa problème la. tey <laughs> mais li li nga wax. dëgg la tey sa sa sa kii kii des cinématographie nu mu tuddee sax euh, comment il avant avant da ko doon jot parce que mu ngi woon ministère chargé des affaires étrangères ak <laughs> mais léegi pour nga woo ko jot ko problème la gars yi dama xamul euh, climatiseur yi moo neex. wala 4x4 yi moo neex wala lan mooy seen problème ba ñu jël seen téléphone. xam nga soxlawuñu leen pour dara dañ leen soxla. parce que yéen a yor li nga xam ne ñun mooy avancé la suñu liggéey. xam nga li nga wax mos naa ko wax euh, directrice des arts Khoudia je salue au passage. Mhm. benn réunion. Mhm. ma ne ko man de Khoudia am na lu ma jaaxal di dëgg yàlla. Mhm. yow bi nga doog a toog euh, voilà bu ñu la wooyee da ngay jël mais après. bi nga defee deux mois trois mois mais kenn mënul la jot. <laughs> bon je peux comprendre que c'est le travail peut-être mais quand même boo gisee nit ñi ça appelle en absence. Mm. nga xam ne di di woon ma. Mm. mais boo mënul woote sax demande à ton collaborateur d'appeler nga ne diw day nekk. Euh, mm. woo doon na ma joindre nangam xam nangam naa ko rappeler wala mu wax la de quoi il s'agit s'il le faut. je pense loolu dafa neex. mais quand euh, euh, on appelle la personne décroche pas euh, day am lu mu niru quoi. ah que il ñu xaw a. Euh, yaatu. am yenn humilité yi. parce que sans ça. voilà jeunesse bi li ñuy xaar duñ ko am. non duñ ko am te résultat yu président di xaar tam du ko am. c'est ça voilà te en fin de compte sax président la ñuy laaj compte parce que lu réussir tam dañ naan le président Macky Sall. te fekkee souvent le président sax. moom du yëg li xew de. voilà waaw c'est que. Euh, je le comprends aussi il peut être dans une posture assez. Mhm. inconfortable mhm, parce que am na yu bari yu bari yu nu ñu comporté woo moom da koy décrier. il le dit tout le temps merci il le dit tout le temps. man nga su ma ko savoir euh, écouter les gens. su ma ko rencontré il faut savoir écouter. <laughs> baax na aller vers les gens. ah oui. et ne pas se départir des populations parce que baaxul parce que ñoo la fi teg. man su ma rencontré président de la République euh, je vais lui dire beaucoup de choses sur culture bi ah du ma porter des gants pour wax ko. je lui dirai parce que man lu may def yëpp c'est objectif mais grand tey dañuy wax Pape Faye wax euh, dramaturge wax Pape Faye wax euh, metteur en scène wax Pape Faye euh, euh, MC. Mhm. Ah, wax Pape Faye. écrivain écrivain wax Pape Faye tey scénariste wax Pape Faye mais grand noo def ba ba ba former casquette yooyu yëpp noonu quoi. oui tout simplement parce que j'ai euh, hmm. euh, naturellement j'ai vécu dans un milieu hmm. artistique culturel moi très tôt euh, quand j'étais déjà à l'école primaire je euh, je j'aimais lire Senghor et je commençais là à composer mmh. des vers. Mmh. Voilà, j'étais encore au lycée, mhm. euh, au primaire, mhm. et ça m'a poursuivi. Et j'ai adoré le, le cinéma très tôt. Et la radio aussi. Voilà. Et ça m'a suivi, ça m'a ça m'a ça m'a suivi, c'est j'ai porté ça sur moi et voilà. Donc je pense que il n'y a pas de il n'y a pas de contradiction hein, mmh. parce que mhm. tout ça ce sont si, des si. métiers ouais, ben, qui sont, ce sont des métiers des mhm. arts mhm. voilà et euh, ce soit les métiers de la parole les métiers de la scène les arts du récit euh, l'écriture poétique voilà, l'animation culturelle en général. Moi, je mets ça, tout ça dans une grosse calebasse qui s'appelle l'animation culturelle. Mm -hmm. Et moi, je suis un animateur culturel. Machallah. Hein? Ouais. Comédien de formation, animateur culturel également de formation. Parce que moi, j'ai, pendant 24, 25 ans, j'ai été euh, le coordonnateur <laughs> de toutes les activités culturelles, euh, euh, bon, euh, tout ce qui est information, ce qui est art au niveau du cours Seine-Marie c'était ouais, tout ça reposait sur ma, sur ma carapace. Inchallah. Et pour l'histoire, d'ailleurs, mm -hmm. c'est cette, cette fonction-là mm -hmm ma doon ci liggéey bu baax a baax euh, di développer les arts toutes les formes d'expression artistique mmh. jusque dans la danse mmh. jusque dans la danse mm-hmm. si moi j'ai fait ah, la danse mm-hmm. <laughs> ah, machallah ça étonne les gens mm-hmm. moi j'ai fait la danse quand j'étais encore au conservatoire en tant jeune étudiant j'ai fait la danse j'adorais ça j'étais ce qu'on appelle l'expression globale alors donc yooyu yëpp dañu boole woon euh, ba tax ne bi ñuy dem bi ñuy poser suñu candidature au niveau euh, de de l'UNESCO pour le prix international d'éducation à la à la paix et à la coopération internationale dégg nga ma tout je euh, les deux tiers du dossier yi yóbboon à l'UNESCO deux tiers de dossiers yëpp sama service la jógee. macha allah. c'est le travail que nous avions je ne dis pas moi parce que mm-hmm. c'était une équipe bien que mm-hmm. j'étais le chef d'équipe mm-hmm. mais deux tiers u deux tiers u liggéey service la woon félicitations sama on a remporté le prix UNESCO d'éducation à la paix et à la compréhension internationale donc euh, yàlla def na Euh, ci géeju art ak culture dañ cee xuus sangu ci. Mhm. bu baax a baax a baax leer na nañ waaw kenn mënu wax culture te waxuñu sa. waxuñu la voilà te waxuñu la loolu moom déjà félicitations. merci beaucoup parce que loolu permettre na dina permettre. les jeunes ça c'était en 92. parce que les les jeunes xale yi xale yi dinañu su ku bëgg mel ni Pape Faye dina xam fan lay jaar. Mhm, mhm. c'est plus que important et c'est rare tamit. ñu gis euh, euh, artiste bu am yenn niveau de yi. Mhm. comme euh, def bac après dem. wala par exemple ba xam naa bac L nga am. exact def peut-être man bac science laa def. comme ñooñu mais c'est important ñu gis autour des des des artistes. ñu gis ñoo xam tamit jàng nañu mhm. dinañ mën a permettre ñu élever tamit. ñu élever niveau bi élever niveau c'est important. mais parfait soo gisee tey en tant que président Arcos tam gis tey diggante Lamine Ndiaye ak Sanex tey lan mooy la mooy sa sa commentaire. suñu père Lamine Ndiaye di ko nuyu au passage ak suñu frère neex hmm. xam nga dañ nekk ci média dañ nekk ci télévision hmm. euh, moo tax hmm. lépp lu may wax dama bëgg après nit ñi jële ci njariñ lu am solo la bañ ci xalab kenn bañ ma ci xalab man mu yëf kilifa sax ñoo bokk milieu bi. Mhm. lii am am na. Mhm. j'ai été le premier à déplorer euh, ces sorties là. mais nit nit nit rek ay mhm. dañ nii xëy na lu woon ñàkk am la am na wax ji am na waaye sedd na. alhamdulilah. le groupe Soleil Levant samay rakk lañ. Mhm. ñoom saa neex di la nuyoo passage jox. Mhm. cër man. Mhm. dañ ma respecté jox ma cër. man ma delloo loon ko amul lenn lu ñuy def ñoom sax père lañ may wax. waaw ah, c'est de yi nangam la ñu bëggoon luy sa xalaat. <laughs> boo na ñu ba ñu ba. macha allah. la ñi ñu muy dégg. macha allah am na solo. mooy leen baax na kon li ngeen def nii te ngeen ko ci yoon baax na. Mm-hmm. bu ci film boobu ñuy wax Diamond House. Mm-hmm. bii indi coow lii. Mm-hmm. man joué naa ci. si waaw. naa ci rôle bu am solo. ni ci Lamine njaay joué rôle bu am solo itam. waaye seetaan yi am doole rek. seetaan da bëri doole. moo tax mu dugg fu mu warul dugg mm-hmm. mais biir na mi nii bu dee mbirum xaalis la mm. di nga nii waxoon naa la ko suba wala gannaaw suba danañu ko régler macha allah maa la wax nii c'est important mm. parce que xam naa ne muy ñoom sa neex jojo mm-hmm. sont trop gênés dans leur chair trop que je félicite mhm. au passage qui est un grand acteur qui mhm. mérite des hommages mhm. qui mérite nos félicitations pour le travail immense ah. qu'il a fait pour son apport mhm. pour de notre métier qu'est théâtre mhm. euh, di wax rek ni adduna mhm. noonu nii rek la mun demee lu woon jaas waaye dama ni lépp dana sotti ci alhamdulilahi rabbil alamin te ñu bàyyi nag ñu bàyyi di taawi Sénégal lañ mën taawi nag. nit ñi dañuy taawi rek. dañuy taawi di dañuy xëcc muy dem de. xam nga taawi ñiy taawi. waaw ah. neexul Lamine. Mm-hmm. connaissant man neexul. Mm-hmm. soleil levant. Mm-hmm. neexuma man mii. yow miy jiite Arcos waaw. waaw neexul kenn waaye. nañu rafetal rek te xam ne lépp rafet incha allah. allah am na solo. loolu daal la amoon ci li ma wax ci mbir mi. ah di gërëm nag képp koo xamante ni avec sincérité. Mhm. def nga ci sa loxo ngir defar. Mhm. waxuma ñuy jóg pour yàq. Mhm. waaw. d'accord moi je connais bien les artistes de Soleil ñu baax lañu. macha allah. ñu baax lañu. amuñu amuñu benn problème bëgg li ñuy def lañu. amuñu benn problème. comme ni ma xamee Lamine Ndiaye. père Lamine Ndiaye aussi un artiste de talent. waaw. waaye nag seytaane ñëw rek. Sénégalais dañ mën taawi de. day waay seytaane mais ñu jàmm. <laughs> seytaane mais ñu jàmm. gaa yaa yaa ngi grave yaa ngi <laughs> dévalé scénario bi de. <laughs> mais macha allah mais mais doon dina am Miss Sénégal ak pro problème yi fi yi fi jóge yëpp 2023 euh, dina am Miss Sénégal. j'ai pas bien compris la question. l'année prochaine il y aura la prochaine dina am Miss Sénégal. ak problème yi fi jóge yëpp je pense que. mais yëpp suñu borom bi def na ci ndox mu sedd guy. macha allah parce que déggatuñ ci quand même dara quoi macha allah ndox mu sedd guy. incha allahu rabbi. Hmm. Euh, Miss Sénégal va reprendre ses activités. très bien parce que xam nga lan la. vitrine la pour Sénégal Miss Sénégal hmm. patrimoine la de. patrimoine hmm. amul benn organisation wala kuréel bu amul wax. dëgg la. il faut que mu am. ay jafe-jafe yu mel noonu il faut que ñu duut la baaram wax sax dëkk la foo dëkkul dëgg la wax la loo deful mm-hmm. mais da ngay accepter dëgg la parce que sinon boo nee fi di xëccu di def mais du sotti tu perds du temps tu perds du mm-hmm. per du du temps mais créé na fi benn benn affaire bu ngand il faut prendre de la hauteur. de la hauteur mais nag loolu mooy suñu problème. il faut prendre de la hauteur de affaire de affaire de viol dafa nekk Amina Badiane waaw Amina Badiane waaye. Mhm. c'est une dame extraordinaire. Mhm. nit ñi ñoo xamul. moom mooy promotrice événement oui. Mhm. et une c'est une dame de cœur. elle a tellement fait bien so bien bien yu ma sur le plan social. mënuma la wax sax ni ma toll. mais dama ne une fois encore une fois seytaane mais ñu jàmm. ci biir tamit. mais ñu seytaane mais ñu jàmm ci bii <laughs> tey Miss Sénégal mais ku ko moom ko dul ñun. dans tous les pays du monde y a. Miss donc bii. Mhm. xëy na dafa ñëw rek indi ay ay affaire moo ci nekk ni mënu woon ñàkk mais dañuy liggéey di dem. Mhm. incha allahu rabbi. Mhm. c'est nag. am na lu mu yàq parce que. waaw waaw xam nga léeg-léeg seytaan waxul dëgg waaye. yàq na xel mm-hmm, mm-hmm. ba ci partenaires yi nga xamante ni ñoom ndeysaan defoon nañ ne wax am na fekk dara amu ci. Mm-hmm. ñu mujj obligé nag jël recul di regretter. parce que ñoom dañu teel a. agir en disant ah nañ téye suñu nañ banque suñu loxo. waaye xam nañ ni xam nañ ni. coow la dara. amu ci. alhamdulilah kon. Mhm. mais ay bés ngi ñëw. Mhm. dina gën a leer quoi. xam nga leer na non leer na sax. déjà leer na dina gën a leer na dañ leer na dañ dara amu ci. waaw dara dara dara dara amu ci. su ma su ma ne la accusation yëpp ak nu mu. soo ko waxee dañ koy gëm dañ koy gëm. dara amu ci dara amu ci c'est seytaane bëri doole rek et puis xaalis affaire xaalis xaalis xaalis xaalis seytaane. xaalis xaalis moom day yàq lu bari comme. parce que bëgguma sore ci wax ci. waaye mais on comprend waaye euh, comprendre euh, nañ loolu la quoi comprendre nañ voilà nañu Amina man wax dëgg mhm. yàlla. tax may wax de. Mhm. waaw yàlla tax may wax. Mhm. dañ ko tooñ. tooñ bu metti lañ ko tooñ. kon ça a été difficile pour elle franchement. parce que man xam naa. kan mooy mm-hmm. naa ko parce que man du ma ànd ak ku bon. non bono doo ànd ak ku bon grand. waaw ça c'est sûr. du ma mm-hmm. ku bon. Mm-hmm. su ma xamee ne yow liggéeykat nga ah da nga bàyyi sa lépp ngir liggéeyal sa réew. danaa la jàppale te du laaj un rond. dëgg la. dëgg la mosuma ko ne un ro temps nga may fay. Mhm. mosul am. man mii rek woon naa la ci benn événement même chose. waaw waxoo ma zéro franc. parce que dama xam ne yow. Mhm. Mhm. liggéeyul la sa bopp sa réew ngay liggéeyal. bien sûr c'est vrai que da ngay liggéey pour dundal sa bopp dundal sa njaboot et tout ah mais su ma ñëwee fi damay chantage di indi na soo ma fayal temps du ma dem. ah mooy su nga bëgg maa nax soo ma bëggee nax moom. ma xam ne danga may nax moom sa moom alors c'est problème. Mhm. parce que kenn dofut. non dëgg la kenn dofut ni que da nga am rek. mu ànd ak liggéey. Mhm. Euh, donc euh, pour Sénégal yëpp xam ni. Mhm. vraiment euh, encore une fois. réew mi sunu réew la. nañ moi je suis un ambassadeur de la paix. j'ai été fait ambassadeur de la paix GPPI. Global Prospective Peace and Initiative. qui est basé aux Nations bu dul dara. Mhm. dama war a dox dama war a dox jàmm ci réew. lépp luy wisal sedd. lépp luy salal dama koy dox. Mhm. mais tey mais mais kon grand tey xanaa tey euh, politique bi nu mu demee fii au Sénégal pour tëjee foofu noonu xanaa yow yow en tant que homme de paix xanaa war nga ci a wax. gars yi sonn nañu dama ci wax. tu xanaa tu lis pas mes ok ah. quand j'ai fait lettre aux concitoyens, à mes mm. concitoyens. Mm-hmm. c'est un poème immense. ah boobu jotuma ko doon gis. ah si xam nga xam lu taxoon ma bindoon ko. Mm-hmm. dama toog télévision di seetaan nos honorables députés à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. il y a deux ans de cela je crois ma dégg ci wax tegginiwul doy waar mm-hmm. ma gis ci jëfin. yu tegginiwul. et comportement yu tegginiwul. Mm-hmm. boobu maa ngi toog ay xale yu tout tànk mm-hmm. doon fo. jékki-jékki ñu bàyyi fo mi di seetaan télévision bi bi ñu paree xale yi bi ñuy seetaan télévision bu pare ils ont répété la même chose. que li ñu def ci ci assemblée nationale mm-hmm. sama yaram dafa daw je me suis enfermé ma yëg ca kaw sama kër mm-hmm. je suis dans je dans mon bureau et j'ai commencé à écrire lettre à mes concitoyens mm-hmm. après def ko vidéo loolu moom c'est à partager

xam nga mel ni mel ni nekk ci arène bi yooyu quoi. mon pays doit être beau chaque jour. le Sénégal ah. le Sénégal a besoin d'hommes politiques élégants ñoo xam ni dañuy taxaw. seen comportement euh, seen habillement seen waxin. dañu war a def voilà xam Ablaye Wade lu mu mos wax. Hmm. man mii Ablaye Wade. Hmm. fam benn bés. boobu Xadafi. Hmm. dem si yàlla ji. ñëw mm-hmm. fi mm-hmm. euh, ñu war ko recevoir comme ban stade loolu encore je ne sais même plus mm-hmm. man ma jël micro comme j'étais le pressenti à à l'animation comme j'étais pressenti à l'animation maa nga naan téye samay loxo ndeysaan gii moo bari doole ah góor gi moo góor gi nag bëri doole de. bon Abdoulaye Wade moom bëri doole suñu suñu moom. di ko ñaanal di ko ñaanal teg di fan bu ànd ak wér. te boobu voilà. Euh, y avait ndeysaan ndeysaan Bélissi ki caméraman nag mais Pape. Euh, il faut. il faut que bouger foule bi. <laughs> sama yaram tàng nag. ndeysaan ndeysaan. may jëkk ci rek jiwaa góor. ñu pare. lendemain. Euh, colonel Cissokho woo ma. ndeysaan. mooy mooy dëkkan bi. waaw si si colonel Cissokho. ko mu ne oui c'est ça le président a besoin de toi ici tu peux passer à à onze grand boobu mën nga ma boole sama lii. non cest à boobu. boobu sama xel demul ci leneen. non dëgg la non la dee ñu waxtaan pare. mu ne ma mu ne ma séeréer grand président su ma wooyee ma wax. Ah. Euh, kontaan na ma ci yow. ah bon. ma ne ko mais président lu xew. mu ne du yow yaa war a wax góor gi mooy bari doole. non mais Wade nag franchement c'est c'est un grand. billaay mu ne ma c'est un grand. mu ne ma du yow yaa ko war a wax. Mm-hmm. il faut plus dire ça. oh góor gi moo bari doole nga koy wax ba ful bi yëpp di ko reprendre mu ne ma c'est pas toi. pa pa pa pa reste zen. Oh. tu es un présentateur un maître de cérémonie. macha allah aw oh, Wade. <laughs> mu ne ma nag moo tax je te déconseillerais de faire de la politique. ah Wade. mercredi prochain pour un nouveau numéro de Parlons Culture culture baa ngi jooy may leen ko nopp franchement ça a un grand plaisir d'accueillir un grand de la culture un homme qui a fait la culture du Sénégal et qui continue à faire la culture au Sénégal donc di ko remercier bu baax a baax ni ku baax la ni ku oyof la ni ku am ambition pour dëkkam la mais Abdoulaye Wade nee na ko bu def politique ah, ne fais jamais la politique à mercredi prochain pour un nouveau